jëf mbokki internet Allô Sénégal Seydina Ousmane Ndiaye dootuñ ko présenté ci réew mi ndax liggéey na fi ci ñaan yàlla ci xam-xam ci asraar loo xamante ni réew mi yëpp ñi ngi koy bàyyi xel te ñu ngi rafet lu liggéeyam cabinet cabinet Seydina Ousmane nekk na cabinet boo xamante ni bu nekkul meilleur jamono jii ci senegal raw na yu bari wala sax mu nekk ca kanam ay produit naaru góor bi ñu xam ñu bari xam nañ ko waaye faj aajo seet gi ko yàlla may ñëpp xam nañ ni amu ci moroom ñu seet si ko nag ngir waxtaan ak moom ci actualité waaye xam-xam bi duñ ko fàtte mukk actualité gis nañ ni kii di Marème fay Sall ay menaces mi ngi jógee fu ne bi ci njëkk ci Juan Branco avocat Ousmane Sonko tubaab bi nga xamante ni moom lañu refoulé woon senegal nee na yor na ay vidéo Marème fay ñeneen ñu mel ni Tunkara ñeneen dëggal nañ ko ne yor nañu vidéo sëriñ bi dina ci génn dina ci dina ci leeral waaye sëriñ bi dina wax ci Ousmane Sonko procès bi nga xamante ni moom moo dox ci digganteem ak Mame Mbaye Niang ak procès bi dox ci Adji Sarr sëriñ bi dañ naan moom mooy sëriñu Ousmane Sonko tey dina leer ndax bi mu dalee wax ci Ousmane Sonko yàgg na te Ousmane Sonko tollagul fii ci baatin la koy teg ci xam-xam la koy teg tey dina indi ci xam-xam le 16 bi luñ ci nar a xaar Ousmane Sonko nu muy muccee feebaru Gaston Mbengue bi sëriñ bi am na lu mu ci xam am na lu mu ci yëg te am na lu ci gis faaw rek mu daal ciy génn wax ci ndax mi ngi bëgg a yàgg defaat na beneen rechute fële France balaa boobu dañ koy bàyyi mu Seydina Ousmane mu nuyu mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala afdali xalqillah muhammad ibni abdillah rasulillah ala alihi wa taabii taabiina ila yowmi liqa ngi sant yàlla julli si yonent bi nu nuyu mboolem mbindeef ci aalam boo mën a nekk di ziyaari waajur di leen ñaanal yàlla di sakku ñoom ñaan di leen dalal si seen kër wàllu Sénégal di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Seydina dañuy tàmbali waaye fi ñu koy tàmbalee mooy réew mi daa am lu ñu baaxoo di gis képp kuy seet dañuy gis nga yor say pettaaw yor leneen ak leneen nga dikk ci réew mi imposé fi seetum seetum rawxaan ba jamono ji nekk nga ci kaw loo mënul gis mën naa ni amul waaw toujours lu may wax rek sëriñ moom mënoo koo nekk te mënoo seet mënul nekk day mel nga ne dangay ngay ndugg ji marché te yoroo xaalis boo fa jëlee ndugg yu jàmbur tamit dina dóor ba ngay bëgg dee waaye nag xam information yoo xam ne yu ñëwagul kooku yàlla moo ko jagge moo ko jagloo waaye dafa am ñu mu ko jagleel ci ay jaamam mm-hmm. ñu ngi sant yàlla jàmb xew bi yàlla boole na ko si ñooñu waaye seetal nit mu yuuxu wala mu ne li nga ma wax musu nit musuma koo wax wala mu ne su ma la fekkoon ne dañoo mës a gisante wala ma xam koo xamante nii dafa la jege ma nekkoon dañ ma jaay dañ dañ ma jaay ndax la ma koy wax dara du ko ci dindi problème nag balaa nga koo mën a faj da ngay da ngay gis balaa nga am solution am dangay gis problème bi ba pare yàlla dimbale nañu nag ci wàllu kurus ci wàllu ismulaayil azam ci wàllu talaasim loo xamante ni lépp luñ soxla buñ ko waxee rek lépp lu lépp luñ bëgg xam-xam ko yàlla dimbale nañ ñi ba boole ñeeg ay mindeef yoo xam ne buñ téye lu ñuy téye si ismullahil azam luñ bëgg mu deeñu mu deeñu ko te duñu wax mukk luy deeñ ndax ci ak jullit lay tegu ci ak sharia waaye ci xaqiqa gu wér goo xamante nii ndoxam sharia moo koy moo koy moo koy roose yàlla dimbali nañ si loolu da nga dem ba toll foo xam ne sax daanaka du laaj ngay wér do benn tu du laaj ngay rëdd benn xaatim waaye nit ki na nga dégg soxlaam rek wala mu toog sa kanam rek lépp lu nekk ci moom nga xam ko wala lépp loo xamante ni mu ngi jëm ci moom nit dana nekk di rey boppam si benn liggéey fekk nekkul ne wërsëgam foofu la nekk soo ñëwee dañ koy xam xam la fi nga war a dem nit dana ñëw sonal la si tukki fekk warul tukki fekk réew bi mu bëgg a dem waru dem yooyu yëpp ay sew-sew la yoo xamante ni yàlla xamal nañu ko moo waral képp ku ñu jëflante rek nga gis résultat bu la yéem su ko defee bu ñu la jaarale fi ñu war a jaarale xoolal la ba pare gis sarax xam biddiw sa tabéan sa rawxan sa àndaale ak lépp lu jëm ci yow su boobaa bu ñu la ko diggalee boo jaaree fi nga war a jaar rek lépp loo doon ut ci ay at rek mu ñëwal la ci weer yu néew a néew. sëñ damay wax ni dara yéemu ko waaye ñun dafa am lu ñu yéem ci yow muy wàllum këyit ni mu yombee ci yow ak ni mu jafee ci sëriñ si yo mën daal loolu yéem nañu ñun. waaw xam nga àdduna lépp chiffre la lu may wax toujours nekkul ne li ngay jox kii mu ubbeeku moom ngay jox kii mu ubbeeku li nga jox kii mu ubbeeku mën nga koo jox keneen mu tëju. ñaari liir buñ juddoo seen apprenti yi sax duñ bokk kon képp ku nekk li nga koy defal ak morom ko wërtu bokk yàlla nag daf ñuy dimbale xamal ñi loo xam ne ci wàllu papier ci ay mbir yoo xam ne bu ñu fa jaaree maanaam da gis loo xam ne soo jàpp ne kayit gaawee na noonu su fekkoon ne liggéey bi daf lay may ngay tudd ay tur wala di wane ay message wala dara konoon danay wax ni kii kana àddina bi moom moom kayit rek lay liggéey ndax résultat yi ma ci joxe ñoo xamante ne toog nañ ay ati ati at at am na ñoo xamante ni déposé nañ luñ yaakaar buñ ta saa buñ ne leen nangam rek bu ñu demee nga gis affaire bi day faussé waaye waxtu woo xamante ni déggante nañ ñu xoolal la ba pare ne la yow dañ la war a ñaanal demal nga tëdd nelaw léegi tey nga tey say papier waaye su fekkee ne parce que nit nekkul ne nit ku la oo rek yow yaa sëriñam am na ñoo xam ne dañuy oo wala ñoo xam ne dañ lay ñëw jox la alal ju nekk dama la koy delloo waxal ne la yow duuma sa sëriñ looloo waral may am résultat yi may am parce que su fekkee gis naa ne yow waruma la ñaanal dama lay génnee si rang bi waaye su ma la waxee ne la lii mën naa koo régler demal nga tëdd nelaw loolu daal yàlla dimbali nañu si loo xamante ni buñ ko defaree ni koy defaree ba pare yónnee la li ñu lay yónnee doo ko laal lu mat juróom-ñaari fan te duur ne téye nga sa kayit maanaam su fekkee ne mosuñ la cee oo yow buñ lay xam nga yow yaa si war a def sax ay dox di di lijjanteeg yooyu waaye yow ñoom ñoo lay oo munuñ si dara parce que lay dugg seen xol yi di ko yëngal ba loo seen dossier sax ñoom duñ xam mm. waaw ñoom ñu nekk Europe xam nañ bu baax a baax a baax te jamono ji mayam kayit yi tar na trop te Seydina Ousmane lu bëree bëri moo nekk si suuf la ilaha illa allah Seydina Ousmane boroom xam-xam la nitu yàlla réew mi xam nañ ko waaye tamit cabinet bi nga xamante ni yor na ko Sénégal amul kenn ku ko umpale cabinet bi dama ciy jël benn garab muy naaru góor bi naaru góor bi nag sénégalais yee ma yónni ci yow ndax nee nañ secret bi waxoo ko waaw naar góor moom mu ngi noonu rek en tout cas dal ku ko jël xam nga ko mu ngi toj réew mi mu ngi toj àddina mu ngi def lu nekk hmm. képp koo xamante ni problème néew kàttan nga amee ak lu ko mën a waral boo ko jëlee da ngay wér du luy calmer wala dara ñemewoo takk soxna ndax wóoluwoo sa bopp wala wala yaa ngi Dakar ñemeetoo dem village ndax soxna sa boo demee mooy loolu wala ñaar nga amee mënatoo ci kenn dara moo xam suukar la moo xam cholestérol la moo xam hémorroïde ndox si ak lu mën ci doo ñu ci gisantee mu faju boo amoon boo amoon maanaam 10 ans yoo xamante ni jugalut am na ñoo xamante ni suukar da leen koy def ñu toog lu yàgg dootuñ nekk góor bu ñu gisee mu deñ képp koo xam ne daal juddoo waale woo ko ak lu mu mënti doon demal ba 80 ans ba jeexal boo ñëwee incha allah liñ lay jox buñ la ko joxee boo ko jëlee da nga yëg loo xam ne ndawam vingt ans sax yëgul lu toll noonu te du la wàññi dara day raxas sa biir raxas sa deret may la appétit am na yoo xamante ne lem lañ ko jógee liggéey mais ñi nga xamante ne dañoo am suukar duñu mën a jël loolu ñuñ préparé nañ leen ay garab ak ñeneen nañu ak yeneen maladie yi nga xamante ni maanaam ñu ngi koy def parce que dafa am loo xam ne xajut si émission waaye cabinet Seydina Ousmane nekkatul lu ñuy présenté naaru góor nag moom wax dëgg yàlla neex a la doon amul benn effet secondaire te jëfewut sa saag ak sa poos ak la neex mën nga ko def xelal sa kudd nga naan jeex na lépp loo xamante ni bëgg nga ko da nga ko am sobe yàlla. waaye sa jëmm ji buñ ko gisee ci kanamu écran yi muy émission am na ñoo xamante ni lenn lañ ciy xaar muy ubbeeku yi nga xamante ni yaa ngi koy faral di wax njariñ li mu am li nga ciy liggéey ak fin bi nga maye benn garab ubbeeku goo xamante ni ku ko jëriñu ku ko def gis njariñ. waaw man yàlla dafa def secret yi may joxe du dégg ku koy wax. te retour yi may am bëri na trop. loolu ñu ngi ci sant yàlla. parce que ñëpp mënuñoo am asti si Seydina Ousmane am na ñoo xamante ni tamit bu ñu leen gisalee sarax sax mënuñ koo génnee waaye tegtal bu ñu leen tegtal dañooñ ko mën a def boo amul ku la boo mëntu bind xool koo xamante ni mën na la koo bindal mu bindal la ko su fekkee ne wërsëg moom moo la jafe danga bëgg ay papier mënoo ko am foo am fu ñu la embauché ëllëgee ñu dàq la wala benn weer ñaari weer mu yàqu loolu dafa am yu bëree bëri yu koy waral te càngat yi may joxe boo ko defee yooyu yëpp da ngay teqalikoo moom te da ngay ubbeeku te wërsëg dafa lay yomb te sa loxo dootu bënnati da ngay yaakaar muy tas loo wax ni mu teggeeku suñ ne la lii mu fóose wala yu mel noonu ba la yàlla dimbalee ba nga woo Seydina naa ba mu xool ko loolu mën na la cee génnee waaye su fekkee ne yàlla def na mënoo koo jot da ngay bind suuratul waaqia suuratul waaqia ngay bind 41 waqia ngay bind 41 waqia boo yegg nga bamtu wa man mandud loolu benn aaya la mu ngi ci biir boo ko chiffré daf lay jox 243 moo jàpp jamra soo paree nga ut 112 xobi new xobi new bu ci nekk da nga ciy bind rabbi habli maalan jazilan bi xaqi mikaayil soo paree nga sàjj ko xob yooyu boo ko saafara su su wàqee ak góog. sàjj mooy la. sàjj mooy danga koy dëbb. soo paree ba ut suwoo ba xooj ko ci. wallaay boo ko laalee nga gis loo xam ne musoo koo gis. alal jëfewut wërsëg jëfewut xaalis du dara. na nit ñi dimbale nit ñi génnee mbir yi wallaahi boo ko boo ko sangoo nekk millionnaire. wërsëg fekkee moo la itteel bis boo ko sangooyee da nga gis alal joo xam ne mosoo jàpp ne lii alal gaawee na noonu moo xam mënoo am client danga nekk ci bitik da nga nekk ci commerce da nga am da ngay daanu ak yu mel noonu yu bëre bëree bëree bëree bëri te nit ñi nañuy bàyyi xel li matériel yu ñuy jënd moo xam oto la moo xam moto la moo xam lu mën a doon parce que danga gis ñu bëree bëri surtout jamono mujj dañ lay ñëwal ne la depuis nangam ñu ngi am ay problème boo xoolee ne lan ngeen jënd bu ñu la joxee chiffre bi rek da ngay gis ne chiffre bi ak ñoom dañoo dëppoo yooyu nañ ko di bàyyi xel muy soxna muy waruwaay muy dëkkuwaay lu mu mënta doon nañ ko di xool dafa am yoo xam dafa ànd ak ay ak yu mu laxasoo ak yu mel noonu su fekkee amoo wéeruwaay nag di loo gis rek ne si sërax dugg ci da yàgg daanu ci kàmb yaakaar naa nag euh, am na yoo xamante ni boo si jóg boo demee ba mu toll fenn waroon nga cee dépassé benn 500 waaye da nga si gis mën nga see dépassé ay junne te nag loolu dellu ci mbiri maam yi ak cosaan rek moom moo la koy may waaye Seydina Ousmane da nga mel ni da nga dellu ci mbiri maam yi mbiri cosaan yi fonk nga garab loolu reen ak ay banqaasam dama gis nga teg benn garab socc la xawma ay reen la xaw ma lu mu doon ma am envie rek laaj la ci ngir nga waxtaan tamit ci xam-xam waaw kooku dafa am ñoo xam ne gis nga kii ci wàllu kàttan lay dox maanaam yow dugal ko sa gémmeen rek di socc maanaam da gis kàttan goo xam ne yow daf lay yéem doo xam sax lii fu mu la jógee ci tàngoor ci lépp mbir yi soriwut xam-xam la te yàlla dimbale nañ ñu xam ko te garab fii ci Sénégal guñ xamut yombut yàlla dimbale nañ nag ci mbooleem làkkkat yi ci mbooleem xeet yi seeni xam-xam yàlla dimbale ñu ci ñu dajale ci lu bëri bëri bëri ndax dañoo gëstu dañoo dox jàng waaye am na ñu jàng te yàlla xamalu leen ñun yàlla dañuy xamal alhamdulilah am na ñoo xamee tamit dañuy sëy mais dañoo am problème mu amuñ esperme wala duñ daanu wala am na ñoo xam ne seen sek luy olof di tuddee euh, ñàddam noonu lay def day taxaw rek yooyu noonu buñ ci déggante incha allah rabbi ñu jox la socc yooyu am na yeneen ak yeneen yu muy ànd ak boo ko jëlee soobee yàlla lépp loo xamante ni bëgg nga ko day am même si socc yooyu am na si yoo xamante ni bu fekkee da am problème ak yoon dañ la koy jox rek nga soccoo ko nit mëntu fexe-fexe ba doo dellu sa kër ak koo mën a jotee ak ku mën a doon buñ la ko joxee nga soccoo ko lépp loo wax foofa loolu mooy am say say eh, képp koo xam dafa ànd ak yow lu wax loolu moom mooy am incha allahu rabbi incha allahu rabbi dañuy jàll ci actualité ndax sëñ bi bëri na xam-xam luñ ci waroon a mën a dugal waaye actualité du ñàkk ñu ñu ñu wax ci dellu si waat ci xam-xam bu dee dañuy tëj bi ñu koy njëkkee mooy Gaston Mbengue mi nga xamante ni feebar na ma nga extérieur feebaroon na ñibbisi dem ba ñibbisi Sénégal mais dafa rechuté waat delluwaat France ngir faju ji te mi ngi ci làmb ji gis nañ demoon di làmb ji ni mu mel promoteurs yi ñi nga am problème Luc Nicolaï gis nga jafe-jafe ji ñu am Aziz Ndiaye daw na Aziz Ndiaye daw na génn làmb ji am na seen promoteur bu ci wàññeeku promoteur yaa ngi daw di génn Gaston mi ci ne gënoon a nekk mag gënoon cee nekk promoteur bu mag mi ngi nii ci lalu hôpitaux yi tey. waaw loolu moom ku dellu vidéo yi ci ginnaaw rek da nga gis am na détails yoo xam ne sax duma ci bëgg di dugg waaye nag boo bàyyee sa ànd moom ànd boo dem fekk fa borom mu toog. li ma amee fii si ay dossiers yoo xamante ni ay hôpital yu mag a mag yii ci ay France yii ci London yii ci Maroc fu nekk. ñoo xamante ne rojo bu nekk def nañ ko bañ ñàkk ci ñoom yaakaar te biñ ñëwee fii dama leen a faj ñu bàyyee ñi seen dossier ngir preuve ñi nga xamante ne dañuy ñëwaat dafa am loo xam ne mbiru hôpital la am loo xamante ni du mbiru hôpital Sénégal gi lépp loo soxla mu fi waaye am na ñoo xamante ni jàppuñ ne sax nit gis nit ci internet war naa mën a faj sama soxla wala dara wala dañuy jàpp ne seen niveau ëpp na loolu. te ñu bëri bëri moo leen lor te am na ñoo xamante ni dañ la naan man dama amoon ñetti bitik instant bi ñàkk naa ñaari te benn maa ngi koy wàññi lu tax bi nga ko amee juwa sa bopp nga xaar ba daanu ba ne nga lañ doog a jug am na ñoo xam ne bu ñu xasee ba ubbeeku wala ba tollu fenn rek jàpp nañ sa saye jeex na te foofu nga war a gën a jugee sa bopp foofu nga war a gën a sampee sa bopp foofu nga war gën a utee kaaraange foofu nga war a gën ut loo xamante ne daf lay gën a ubbi parce que xas nga ba départ te ki nekk ci kaw nekk ci yoon kooku la ñu bàyyi xel moom la ñuy xool moom la ñuy def dara waaye koo xam ne tekkiwul dara ko kenn du ko xeex wala ñu ko dégg ñu ko dégg ñu koy teg ak problème feebar bu mu mën a doon buñ gisante incha allah rab bi dama koy faj képp koo xam ne ñëwoo ci man nag foo xam demal après loo fa góobee nga gar ko. Eh, yaakaar naa junj doy na borom xel te sëñ bi du wax jaar ci digg bi ay junjam la lay def bàyyi la am na loo xamante ni du ñàkk ñu waxtaan ci ñi ngi naan la mara marabu Ousmane Sonko ndax dëgg gi nga xamante ni yaa ngi koy yaa koy wax à chaque fois. Ousmane ko jëm ci procès double procès sax laay wax le 8 ak Mame Mbaye waaye le 16 moom ak aji Sarr te démb gis nga point de presse bi Ousmane ko def ba génne slogan bu bees fukki dërëm du ko laal. waaw kooku ñi may ñaanal ñoo ko ëpp waaye moom dafa ëpp lu bari ëpp naa tamit ñi may jagleel benn nit. waaye nag képp koo xamante ne yow lu baax ak réew mi moo tax ngay def da nga ko ñaanal da nga ko taxaw te danga ko soutenir te képp ko koy songu wallaay da ngay xaru ndax am na ñoo xamante ni moom jegewu leen a xam Ousmane Sonko maanaam jegewu leen xam te maa ngi leen a xam ñu koy tëjul ay xalwa di ko liggéeyal ay kurus te seen benn per peru kurus xajut ci monde bi waxuma la benn gouvernement kon nag képp koo xamante ni ñun dëgg lañuy topp. dëgg la ñaanal ndax al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi te yonent yi ñoom ñooy ñi doon xeex njub ak atte boo xam ne dafa aw ci yoon ñooy ñi nga xam ne ñoo doon xeex fexe ba képp koo xam dañ laa néewal doole nga jol nga jot sa àq ñoom ñoo doon xeex ku jiite yërëm ñi nga xamante ni dañ la jiite wala li war si ñoom nga di ko def mission boobu laa yore nag kon képp koo xamante ne dañ lay néewal doole wala dañ lay teg loo xamante ne lu normal loolu li ma war mooy ànd ak yow jàppale la ba lépp loo xamante ni moom la la lislaam jox wala àq jox la ko si àq sa élève ñu jox la ko waaye réew mi ni muy doxee jamono jii képp koo xamante ni wax nga ne noonu la tamit da ngay wax sa lu loolu neex rek wala nga ragal wala nga ragal nañ ñu def la lii wala nangama nangam ñun yàlla def na nag nga ragal nekkul si ñun nga xamante nii nag dañ leen yebal ci Seydina Ousmane wala ci keneen ngir nga dugal leen wala ngir nga deg leen benn ak lu mën a doon ñi may wax ak ñoom xam nañ képp kuñ ci yebal dañ laa tayle demal ci keneen xawma ma waaye man de ku xaru ba dugg ci man danga sedd guy ak ku la mën a yebal yàlla def na am na ñoo xam am na yoo xam ne ñi am na yoo xam ne musuñ ci jaar te duñ ci jaar yàlla dimbale nañ ñu duñ mooy xalaatuñ ko kon sa taar ak noo mën a mel su fekkee ne ak alal joo mën a andi su fekkee ne jàpp nga ne mën nga see jaar ba teg peese wala ba daanañu wala dara yaa ngi nax sa bopp li ñu toog ëpp na loolu te li ñuy bàyyi xel ak li ñuy téye boo ko xamoon doo ko jege te ñi si weeru bëri na ñi si daanu bëri na képp koo xamante ni nag yërmaane googu moom laa ci am bay wax képp koo xamante ni yaa ngi ci te aseegoo na nga waaru na nga bàyyi xel si ñi nga xamante ni ñi jiitu fi jaar ñi may wax xam nañ ñi si kaw xam nañ ñi ci suuf xam nañ nekkatuma ku ndaw te gis nañ ne communication bi may def arrangé wul ñu bëri mënuñoo def direct parce que ñu bëri si ñoom maa leen téye ba tax ñuy jaar ci yeneen ak ci yeneen ak ci yeneen waaye ku bëgg sa bakkan bii nii na nga xam foo jaar am na si yoo xamante ni du ci man waaye li ànd ak man boo yéenee leneen wala nga bëgg jaar feneen rek mu faagàggal la biñ toogee si kurus dafa yàgg te caaxaanuñ te yàlla dimbalee nañ am fuñ bokk am luy daw suñ dereet am téye tur yàlla yuñ téye képp ku ñu ànd ak da am ndam képp ku ñuy xeex da nga nërmeelu ci procès le 16 bi ak le 8. tawfiq yàlla yàlla defal ko tawfiq ak jàmm rek ca kaw sax kanam rek incha allah rabbi jàmm la ñuy gis ci ci ci ci kii bi. jàmm ak tawfiq te réew mi jàmm rek incha allah rabbi Ousmane Sonko dina demaat ci këram ñibbi ci këram kenn du ko génne ci oto. yàlla yàlla defal ko ak jàmm. Marème Faye Sall am na problème ndax Juan Branco mi nga xamante ni avocat Ousmane Sonko la ñu refoulé woon ko ci procès bi passé nee na dafa yor ay video Marème fay Sall am na ñu ko am na nag ñu ko dëkkal ñu ko dëggal. waaw moom moom balaa dara xew moom jigéen la comme jigéen ñëpp. ñaar moo mën a am muy dëgg wala du dëgg ci réew mi fi ñu toll nii ak niñ koy doxalee ñaar yooyu bu mu ci mënta doon du ñombe waaye ñombe la ci moom ak fi mu toll waaye alquran daf la wax ne la hal jazaawul ihsaan illa al ihsaan lu rafet lu rafet rek lañ koy fayee contraire bi tamit noonu la loo teg ci mbagg jàmbur ab gor bu set wecci mm-hmm. bu dee dëgg la yàlla feeñaloon na ko bu yàgg bu fekkee ne du dëgg tamit dana ko jaarale feneen ba fay leen ko comme loolu yàlla xaaratut àlaxira fii lay régler situation yi te yépp a ngi leer comme wax nañ lool ñu ngi ci kanam ñu ngi ci réew mi nañ xool nañ seetaan rek waaye daal xam naa ne ku wéedu ci kurus koo xamante ne alxuraan lañ lay ñaanalee tur yàlla lañ lay ñaanalee boo koy lal laalee ko bant bu gudd te àdduna bii nag lu yàgg la ñu ngi wax àdduna yàggut nanga ma ñun ñoo yàggut waaye àdduna lu yàgg la àdduna fi la ko Ibrahima fekk fi la ko yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa fekk fi la ko Moussa fekk lu ne xew na fi guerre mondiale lu ne xew na fi àdduna des di fi nekk rek te ñun ñu ngi dem rek nga ne àdduna yàggut àdduna yàgg na ñun ñi ñoo yàggut ñoo duwut dara su fekkee nag da ngaa jàpp ne dara nga wala da ngay sax ba tax ngay def yenn yi bis bu àdduna albatikoo sa kaw rek nga xam ne yàlla moo bëri doole Seydina Ousmane waxtaan bi am na solo waaye dañ lay bàyyi nga tàggatoo ñaanal Sadio Mané international bi nga xamante ni jamono jii du ma jug ci di ko wax faaw ñu ñaanal ko ndax jafe-jafe yi nga xamante ni mi ngi foofu ci clubam ngir mu mën cee génn ba dellu waat suñuy loxo ak état de forme bu ñu ko bëggee. du moom laay ñaanal waaye képp koo xamante ni yaa ngi taxaw yóbbu drapeau Sénégal foo mën a nekk ci àddina ak sport boo mën a doon ak liggéey bu mën a doon jaamu yàlla bu mën a doon daxawoo bu mën a doon yàlla taxawu la yëkkati la. Seydina Ousmane Seydina Ousmane ñëpp la waaye képp koo xam ne daal itte nga am ak bu mën a doon ci wàllu wér yaram wér dig yaram ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg ak lu mu mën a doon rek bu ootee ci numéro yi incha allah rabbi lépp luñ ci man danañ ci taxaw jàppale la ci te ñi nga xamante ni xamoon nañ ñi ñooñu yaakaar naa ni rëccu nañ lu tax ñu yéexoon ñi xam jamono yi nag dafa nekk jamono internet bu fekkoon ne jamono yonentu la yonentu instant bi bu ñëwaatoon seen boo jàpp wala télé boo jàpp danga ko fekk mu toog di wax parce que loolu lañ dëppoo kon looloo waral am na ñoo xamante ni il faut nga génn pour ñu gis la nga mën a mën leen a xettale la seen situation yooyu ñoom danañ ci baaxee yàlla dana la ci fayee say mbir dana ci yëkkatikoo lu nekk dafa am jamono bu mu laaj lii la laaj moo tax ñu nekk ci lii waaye jot gi sax mayuñu ko réew mi yàlla na yàlla def fi tawféex defal ñu jàmm ñëpp yàlla musuñ ci gàtt fan ak déggu ñaaw musiba yeeg balaa ñu ndog wa ma ala rasuli illa albalagh wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu